jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci Bawol TV wasaare làmb ak Lutte TV nuyu nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne fépp fu làmb nekk ñu dégtal leen ko ba ngeen mun cee jot. tey nag ñu ngi fii ci Sindia ki ñu fi woo xam ngeen ko muy Assane Ndiaye njiitu Bawol production ñuy remise drapeau bi nga xamante ni tuddee na ko ki nga xamante ni mooy Mamadou Amadou Sow amadu Sow. mu juddee ko drapeau boobu tey mbokk yi yéen ñëpp xam ngeen ni actuellement presse bi dañu nekk ci tiis ndax bërki démb yëg ngeen li nga xamante ni jot naa xew ci suñuy mbokk confrères yoo xamante ni génn nañ àdduna ñuy ñaan rek ñu defal leen une minute de silence ñaanal leen yàlla suñu borom yërëm leen te xare leen àjjana fa la ñu jëm mu dàqal leen lool fii ñu jóge su ko defee ñu jox pël pël bu rafet mu présenté euh, li nga xamante ni mooy drapeau bi ñu waxtaan ci jox Assane jox wulli jox ki nga xamante ni moom mooy parrain bis bi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi ay ca ñu def une minute de silence ñaanal suñu mbokk yooyu nga xamante ni jóge nañ fi yàlla suñu borom yërëm leen te xaare leen àjjana jërëjëf yal na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana te yéex a su ko defee bël kaay yegsil asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV Lutte TV wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ba tey rek ci xew-xewu lamb li nga xamante ne mooy remise drapeau di Baol production Assane premier première édition ñu ngi fii ci Sindia ñëw seet ki nga xamante ne mooy Amadou Sow Amadou Sow Guèye ah Guèye mi nga xamante mooy leneen ak feneen wala leneen ak ñeneen lépp benn la leneen ak feneen leneen ak ñeneen tey ñu tuddee ko li nga xamante ne mooy bés bu mag diggante caatu montagne ak Moussa Guy gi bés boobu xam ngeen du yomb le treize incha allah mais nag duñ def lu dul jox ñi nga xamante ne tey mooy kàddu gi xam naa ñaar si ñoom lay doon wa illaa moom mu wax Assane bi nga xamante ne tey jii nii wóolu na ko fonk ko ba tuddee ko bis ndax olof Ndiaye nee na ku la tuddee doom ak ki la yëg moo yem te olof Ndiaye nee na bëgg boo gis rek yëg moo koy fay ñu fas yéene waxtaanee Amadou tey naka lay waajalee suy ñëw la 13 incha allah stade ak nan lay mobiliser woo nan lay ñëwee uy si Assane Ndiaye ba tax Assane du réccu benn yoon li nga xamante ne moom la jëlee drapeau bi tuddee ko ko waaye nag ñu ànd seeg wulli le grand champion ndaanaan kenn du moom nit ku baax ku ñàkk ki ñaan doomu ñu ngi lay di la ñu ngi leen di di leen ziyaara di leen delloo ziyaar di ñaan yàlla nangu nu suñu ziyaar te yàlla fay ñu yiw te yàlla defal nu jàmm yokk xéewal yi macha allah ñu ngi am mbégte bu rëy comme ni ngeen ko waxee ak kontaante bu rëy nag bu yaatu bu immense euh, ci liy xew Sindia te kenn xewlu ko kudul Alaaji Assane Ndiaye Bawol production macha allah mu am xalaat bu rafet initiative bu rëy ci réew mi ku ne xam na ne 16 millions d' habitants la euh, te 16 million d' habitants yooyu moom Alaaji Assane xalaatu ci kenn gisu ci kenn kudul Amadou Sow Guillaume bu Sinja na moom la bëggee parrainer moom la bëggee jaglele moom la bëgg sargale drapeau bi xam ne mooy xew ci ñaari mbër yi war a bëree ñu am mbégte nag pour recevoir drapeau bi El Hadj Assane ñëw def une très forte délégation ñëw fekk sa monsieur le maire Amadou ak staffam bi yëpp. 19 euh, villages yëpp yu commune bu Sindia ëmb mu ñëw ñëpp ñu ngi ci gannaawam ay partisans am yëpp ñu ngi ci gannaaw al alliés am ñëpp ñu ngi ci gannaaw jigéen ak góor mag ak ndaw ñëpp fekk nañ tey sargal bi ñuy ñaan yàlla nag yàlla def nee naa ko léegi yàlla na nekk. maanaam drapeau bi dàq ci drapeau yëpp bi mu yàggee tëgg làmb ba tey yal na nekk drapeau boo xam ne bu am ndam la bu am sakk ñëpp dem ci jàmm fekk jàmm mbër yi bëri ci jàmm ci fair play ku daan incha allah monsieur le maire excellence Amadou Sow Guillaume ci drapeau bi jox la ko ak beaucoup de fierté. bon ñu ngi kontaan mënuñu fay alaaji Assane lu dul di ko ñaanal yàlla rek lépp loo xam ne lu mu namm la ci làmb la yàlla na ko yàlla defal ma di ko xamal ne ko tudd na drapeau bi. ku jara tuddee drapeau borom jikko ju rafet borom jikko ju yiw ku am yar ku am teggin ku am sutura ku fonk doom aadama ku wàcc boppam ku bëgg nit ñi ku jël boppam delloo ko askanu Sindia. 19 villages yëpp xam nañ kan mooy Amadou Sow moom ci social lay dox ci mbaax lay dox ci sutura lay dox ci teraanga lay dox jox nit cër bëgg dëkkam fonk dëkkam ba tax na lu mel noonu su amee. duñ def leen lu dul rafetlu ko kontante ko di wax rek ne ah am nañu ay xol yu yaatu pour dugal ci li xam ne mooy sunu sac bi am nañ tamit ay loxo yu ouvert pour ci turu Amadou réceptionné yëf yi di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm di mbég di kontaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw mais naka ngeen di waajalee bés bi dinañ ko waajal ci jàmm dinañ ko waajal bu boobaa Amadou excellence monsieur le maire dina woo ay mbokkam. dina woo ay am di jàmmam dina woo ay soxnaam dina woo ay rakkam dina woo ay dëkkandoom dina woo dix-neuf villages yëpp dina leen woo ñoom ñëpp mag ndaw góor ak jigéen ñu def une très forte mobilisation nag fii la ñuy déparé ba bu nu ñëwee Alaaji Assane dina xam ne Amadou ñëw na ñëw na ak ay ñi mu àndal te kenn du ko manqué ndax xam nañ ne drapeau Assane ku ne xam nga ne réussite rek la mas a am fair play moo fa am Sénégal mooy bëgg Sénégal mooy kontaan bon bu boobaa dinañu ñëw bu ñu ñëwee di ngeen xam ne roy du nuroog piir maa ngi ñu ngi leen di nuyu euh, di leen di remercier euh, di nuyu di gërëm euh, Assane borom Bawol production di nuyu bu baax le candidat di nuyu bu baax le candidat Amadou Sow Guillaume di remercier Yakou Diagne son coordonnateur et toute l'équipe qui est derrière lui euh, di leen di wax di bés bi na fa nekk bés bu rëy si ñun parce que Assane tamit dafa nekk un jeune mais un jeune dynamique bi nga xamante ne dafay yëngu euh, ci wàllu développement nit àdduna bi yëpp xam ko ci moom tamit mu ràññee beneen moroom jeune am di Amadou Sow mi di euh, candidat à la mairie de de Sindia nekk un jeune bu dynamique bu yëngu ci wàllu développement di yëngu ci wàllu social su ko defee loolu kon dañ koy rafetlu ñu xam ne c'est euh, pratiquement la jeunesse qui gagne voilà aujourd'hui le candidat de la jeunesse le candidat du développement le candidat des femmes mais aussi pratiquement donc le candidat de l'espoir tey jii euh, boo déggee ñu naan leneen ak ñeneen ce ne pas un simple slogan mais c'est un programme un programme aujourd'hui qui sera issu des populations pour les populations loolu moo tax tey moom mu jël ay responsabilités am ànd ak équipem di wër di def une tournée dans tous les dix-neuf villages aujourd'hui sur pratiquement donc les dix-neuf villages de la commune de Sindia il a presque les onze villages loolu nag su koy def dafa dem fekki askan bi déglu leen may leen nopp xam seen i jafe-jafe pour mën na déjà apporter des solutions et je vais vous dire un secret aujourd'hui il n'a pas attendu pour être maire il a commencé maintenant donc à donner des solutions loolu nag euh, buñ ko xamee ñun ñëpp dañoo war a ànd commune Sindia bi yëpp ànd 19 village yëpp ànd jàppale ko fal ko ngir jafe-jafe yi fi nekk ak mal gouvernance bi fi nekk ak euh, ñàkk compétence bi nga xamante ne équipe municipale bi mi ngi fi lool lépp naan euh, groupe euh, le mouvement leneen ak ñeneen jëlee ko fi pour teg Amadou Sow Guillaume vraiment pour mu lijjanti mbiru askan bi parce que lool rek moo ko ñor ci loolu lay yëngu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf merci <laughs> Wouly maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum par bu rafet maa ngi lay fay di nuyu ñëpp fi nekk waa Singe yëpp maa leen di sant leen gërëm di sama xarit bi nga xam ne moo nu fi andi tey muy Amadou Sow Guillaume le futur maire de sama xarit waaw. Fatou Mbaye maa ngi koy nuyu ci guddi rek ñoo bokk reer maa ngi moom ak Karamboj may nuyu Karamboj bu baax a baax di nuyu soxnaam Fatou Mbaye sama xarit bu baax sama séeréer bu baax boobu. gaa yi di nuyu Fatou Mbaye jéggal na la mais moom ci guddi bi ma gisee dina ma wuli nan laa tudd. ma ne Fatou Mbaye Fatou Mbaye nga tudd waaw. <laughs> Euh, mën nañ xam euh, tey sa relation ak Amadou. waaw Amadou danoo dama ko fekkoon ci lambu Sidi Jaxate mu doon ku bëgg làmb ma fekk ko mu ànd ak Ibou sama xarit bay Ibou Ibou waaw Ibou Ibrahima Ba ñu ànd ma yor TFM ma bëgg ko jël Ibou ne ma non bay du appareil nga xam ne moom sax bëggu sax di wax télé léegi ma wax ma wax ak maag ma ñëw fii seet si ko ma gis ni ko wax dëkk bi bëggee mu nekk xele boog dëkkam di di yéen jàppale ma ne pourquoi pas ma man duma la jàppale aussi moo tax nag vraiment man tam ne ko lu ma mën dinaa ko jàppale parce que nag boo nekkee xale boo bëgg sa dëkk bëgg leen a sensé lii fi nekk ngay xale bu ndaw am ñu la mag fuuf ñu nekk fi gis lii fi ne xam ne baaxul ñu ne muut ak moom yow ngay xale gis lii fi nekk nga ne damaa bëgg dëkk bi rom nii ñëpp la war a jàppale moo tax ma boole ko sama xarit Assane moom aussi Assane Ndiaye aussi di nit ku baax bi ma ko nee dama bëgg nga. jox drapeau bi Amadou mu ne ma yow wulli boo ma noonu fukki drapeau sax ma def ko. kon Assane Ndiaye moom itam vraiment ma wax ñëpp sama xarit la noo yàgg nag fi jëkk a xottil yële bu rafet bi ma dumaa li jaan gami ba mu bëgg a mu décoré ma ko ndax dóori miti yaa ah. bi ma ko dumaa gami ba ba mu jeex moom ñawal trois pièces ne ma dama la ko que dóor yi neex na ma li neexul. waxu la ko waxu la ko du ma ko ma ko mais dama la bëgg a xamal ne moom a jëkk dafa teraanga ci làmb. ñu aussi ñu ñu bokk dëkk ah ba ba ba wala ma dëkk ba ba tey nag nu ñëw fii Kajoor ah, nga xam ne kon ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak ñoo bokk bàyyi di xa waxal di xamal waa dëkk bi yëpp ne booy bi nu am bu nu ko jàppalee ba lii fi nekk. jóge fi moom mu ñëw fii dina changé. bu nu fi yàlla baye badu def ko maire déwén saa dañ fi teg galaa bu mag def ko à direct TFM li neexul. waa waxal gars yi ñaata avance nga yor. bari na ñeenti avance am naa ko mais amatu na ma di leen yëpp am na ñeenti combat. comme yow yaa ngi Balla Gaye yem fu mu toll nii carte avancé. <laughs> Aziz Ndiaye bi ko woon man dama léegi yaa ngi Balla taw ngeen mën a wax taw nañ mais man moom ñenn donc lay beneen avance doo jël. dinaa kay. <laughs> merci beaucoup. gi maa leen di bu rafet maa lay fay. di wax ma fi billah ginnaaw bi ma sante yàlla jël ci yéen bi di gërëm Serigne Touba bu baax di gërëm Serigne Touba waaw di rafetlu ñëw gi ñëw fii waaw ci drapeau Amadou. waaw kontaan nañ ci trop nag kontaan nañ ci. Euh, ñu koy defal remise drapeau war bëri combat bi mu ngi nii taxaw bi nga ko gisee doy na waaw sant yàlla parce que kontaan nañ ci trop parce que première fois ñuy doog di bëree drapeau kon xam nga lii dañ ciy am waa événement la am nag suñu mbokk yëpp di pare nag te xam na ni dina xam na ni ay coomo bëri wuñu ko de ay ndaana na koy bëri ñuy bëri ay grand combat ñoom ñoo koy bëree bu bu suur bu ñëwee dina xam ne ni bilaay dina xam ne ni stade bi yëpp dinañu ko duy te xam na ni ay coomo bëri wuñu ko daal waa di ñaanal di ko ñaanal jàmm nag di ko ñaanal jàmm parce que lii rafet na trop quoi mm. barki alxuraan ok merci beaucoup léegi lan ngay wax mbër bi daa kii est que nekkul yaa ko jàpp ci ay gàllaaj caatu montagne. non caatu montagne man dama ko ca yoon ba. non yow gis ngay def ay affaire ay débat débat. non loolu ci laam lu bokk mais dama koy ñaanal rek ba suur bi incha waaw mais di sant sama gars yi. est ko lii. non ah ah déedéet mais xam rek di sant sama gars yi daal wóorul noonu la demee nag waaw ba suur ba rek incha allah loolu laa ko ñaanal ñun ñu départ andoor moom mu paan. non quelque chose. non dama koy ñaanal jàmm rek di di ñaan yàlla drapeau bi ma jël ko ci kàttanu yàlla barki sëñ Tuubaa ak Seex Ibra waaw di waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant sama grand bi day sonn ci man chaque jour barki Seydina Mohamed di yëkkati alalam di ko def ci combat am bàyyi jili Abdou Khader kii Modou Thiaw day sonn ci man di jël xaalis bu bëri di ko def ci man di dugg fu ne bàyyi jili Abdou Khader ba mu Espagne maa ngi koy sant di ko gërëm kooku lu ne xoolal fi mu ne nii barki Seydina Mohamed li ma li ma dig man mënu ko wax sax iPhone la ma dig ba pare xoolal jasneer bi mu war a laal ci euh, tabaski bi moom moo ma koy dig fi mu ne nii incha allah bu soobee yàlla Petit Lo nag aw ma fayam barki alxuraani karim day son ñu bëree bëri buñ ma xam Petit Lo tax barki alxuraan ma ngi seet képp kuy jàppale Moussa Guy gi fan si kër Moussa Guy non Amin Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Amin waaw xam na ma xam ñaari kilo yu mburu la may defal ñebe waaw ak espaghetti deux cents sauce pomme ak ñaari kaasu café dama koy sant bu baax di ko gërëm waaw di sant njéemi nag maa ngi koy sant parce que moom ñaari palaat benn bi duma ko fay benn bi moom danaan maa fayal garaawut barki alxuraan karim di sant ñëpp nag képp kuy jàppale Moussa Gueye gi maa lay sant Angoula sunu excellence waa di la wax nga jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax waaw Abdou wax leen maa ngi leen wax yéen ñëpp ngeen jàpp ci bi parce que lii seen la drapeau la ñuy bëree te xamal lii yombut waa jàpp leen ci combat bu baax képp kuy bëgg Moussa Gouye Gui rek Moussa Gouye Gui mi ngi lay tàllal loxo nga jàpp a combat bi ci barke waaw Fallou Fall Thiaw ñëpp maa leen di bëggee di sama yaay bu baax a baax baax di ko ñaanal jàmm waaw amul benn problème maa ngi bëggee nag waaw incha allah acca yi jaa ngeen jëf ñu ñëw nag ci ki nga xamante moo waral coow li ndax nee riir bi riir bi ngelaw li la borom leneen ak leneen moo ngi nii maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaane ñu bàyyi la suñu mbokk internet yi à travers Baol wasaare li TV àdduna lay déglu. jërëjëf ñoo lay nuyu pul bu rafet comme niñ koy waxee ñu ngi sant yàlla tout d'abord di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu di sant sama ñaari waajur di sant population bi Sindia yëpp. ñu ngi nuyu di giar Mouhamadou Aïssata Ba xalif général Guettardo di nuyu Cheikh Sidi Ousmane Ba it mi sama buntu si kër Aljuma di nuyu di gërëm Assane Ndiaye Bawol production maa ngi nuyu Yaaku Diagne sama coordonnateur su ma nuyoo Yaaku Diagne nuyu naa équipe bi ak staff bi yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan nag bu baax. si drapeau biñ ma duppee bi ma Assane Ndiaye duppee à travers wulli mii di sama xarit di sama wëllëre yéene ma lu la it parce que damay faral di wax ku la yéene mbooy du la soññuwaar olof moo koy wax yenn yi yéene la moom it bi ñu xamante wul mukk di œuvrer si li nga xam ne si liñ nekk ni muy jàppee mu dem dem kanam lii si la bokk illustration parfaite loolu la mais di wax na rek kontaan nañ incha allah Assane it am na lu ñu ji loo xam ne incha allah mënuñu ko fay mais dinañ jéem si suñu kéem kattan niñ ko fayee ba bu bés baa bu ñu ñëwee dina xam ne waa commune Sindian ñëw nañu dina xam ne département de Mbour la tuddee drapeau incha allah ñu ngi kontaan. Ah, c'est tuddee la nañ la ko tuddee. ma drapeau la ma nag ay yoon yoon parce que wulli mi waral lii sax ñu nga xamante si programme làmb sii di jaxate te fii ci commune bi it euh, promoteur yi fi nekk wax dëgg yàlla bu duloon ci période Covid bi euh, damay am ay drapeau yu bëri chaque année mais drapeau Dakar moom c'est la première fois donc moo tax ñu ne ñun lii défi bu ñu war a relever défi défi bu ñu war a relever la incha allah. leneen ak ñeneen ba ma concept boobu boo déggee leneen. mooy beneen méthode beneen doxalinu politique bu bokkul ak majeure partie politiciens Sénégal yi di doxalee. ñeneen nag mooy nit ñi mooy les patriotes mooy les hommes intègres ñi war a doxal ñu doxal loolooy loolooy ñeneen. programme vaste programme la boo xam ne bu yaatu la seen du du du slogan rek mais mais vécu la vécu la lu ñuy dundee la comportement la au jour au jour le jour. tey ñu tuddee la drapeau euh, Dakar le treize nga war a ñëw booy ñëw nan ngay ñëwee nan ngay waajee bés si loolu laay euh, profito lancé appel maa ngi woo euh, waa Sinja yëpp maa ngi woo waa département bi maa ngi woo samay mbokk di woo sama militant yi di woo militante yi di woo mbokk yi di woo xarit yi di woo soppe yi diwoo am di jàmm yi di woo. partenaire politique yi parce que lii comme ni ma la waxee rek défi la boo xam ne dañ ko war a relever incha allah moo tax ñu ngi siy woo ñëpp bàyyi ñu kenn na ñëpp ñëw gunge ñu ñu dem jéem a delloo njukkal Assane Ndiaye Baol production incha allah. mu nekk euh, bi di rabbi dañu ñaan na nekk na nekk partenariat buy. continuer comme it ñoo ngi à la veille des élections ñun ñaan yàlla it drapeau bi mu fiy andiwaat mu ñëw fekk ñu ñu nekk la monsieur le maire ñu contrôler commune bi nuñ ci taxawee benn fii mun ci taxaw fukk wala fukk ak juróom parce que ñu war a delloo njukkal. Euh, lan moo làmb. ñun làmb mooy suñ cosaan yeneen yëpp mën naa ne ay sport yu ñu yu ñu yu ñu importé la mais làmb mooy cosaanu Sénégal dëgg ñëppay dund làmb man. comme tout bon sénégalais làmb la ñuy dund dañuy eh, bëggee làmb yit muy benn muy muy muy muy muy benn vecteur it boo xam ne tey développement nekkatul sport rek parce que bu njëkk la ñu gisoon ne làmb nit ñi mun defoon nañ ko si divertissement mais tey làmb nourrit son son son noonu ñëpp gis nañ ko. donc di encourager di encourager jeunes yi nga xam ne tey loolu la ñu opté di leen wax métier la comme yeneen mu ci métier yi ku ci nekk. Euh, nangul nangul nangul loolu nga góorgóorlu si te nga xam ne mën nga si réussir mën nañu développer réew mi tey à travers à travers Lambte. macha allah sa naataango bi taxaw léegi dama ko laaj nee na Assane na xam ne mu ngi soog a tuddee drapeau bi tey dina mel ni drapeau bi mooy gën neex ci teg loolu yeneen drapeau yi Assane mus tëgg. day ñaan te dafa baax Babacar sama mag la boo gisee nii teewaay ñi fi taxaw yëpp mag ñi soppe ñépp gis nga ne kontaan nañu. accueillir nañu drapeau bi à bras à tey moom dafa gis ne du ñu premier programme am nañ ay programme amati ay programme nee naa fonk naa programme yëpp mais dama gën a fonk bi balaa ngeen di ñëw dañu waxtaan xam naa si aspect yooyu rek la ko teg parce que moom am na expérience ñun am nañ expérience bu bës te incha allah bu ñu ñëwee Dakar yi ñëpp dinañ xam moom li mu wax fu mu ko teg ginnaaw bi mu déplacé wu Dakar ñëw seet si la ban yëg-yëg nga am. non sant yàlla lay njëkke parce que lépp loo gisee àdduna rek yàlla la moo nekk au début de tout moo nekk moo moo moo moo moo la fin de tout it dañu sant yàlla tout d'abord di kontaan parce que wax naa ko si njëlbeen parce que am na loo xam ne yéene la ku la yéenewul du la defal lenn li lii yéene la ñun moo tax ñu ne la moo tax ñu ne la si njëlbeen yit ñun dañ koy jéem a fay mais mënuñu ko fay lim ñu ji dañuy jéem rek. te incha allah it suñu collaboration ñu ngi ñaan yàlla mu nekk collaboration bu continuer du si aspect làmb rek dinañu demante dinañu doxalante dinañu jëflante. si si si fànn yu bari incha allah. mais ma jox Assane su ko mu ñëw nga daal di woo mbokk nga tàggatoo comme waxtu bi daf ñoo xaw a def Baol maa ngi nuyu senegal bi yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan xam nga Baol TV Wasaare ak Leewtoo Lutte TV ah. di leen béggee bu baax a baax di nuyu presse bi di nuyu Amadou Sow Guillaume di nuyu Wuli. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci jataay bi am mbégte lool comme li ma ko wax rek ñun ay ndaw lañ liggéey moo ñu ñor fépp fépp luñ gis lu baax si kàttanu yàlla ci nekk Sénégal dinañ ko jëlee indi ko wan ko sénégalais yi. Mm. di wax waa commune Sën Dia nit ku baax la xale la bëgg na defar dëkk bi te xale mooy màgg mooy man leneen donc ñu ngi koy encouragé te si kàttanu yàlla lépp luñ man dinañ ko jàppale bu buñ fi ñëwaat fekk mu nekk maire si kàttanu yàlla deuxième édition kontaan nañ lool. tey nga waxtaan ak sa doomu ndey wulli wala boog sa rak ndax nee na njëkk a teral ci làmb wullee ko wax ay waxam la ngeen waxtaan ba juboo ci drapeau bi nga nangul ko ko lan moo tax mu yomb loolu. waaw euh, dañoo yàgg ma ak moom yàgg nañ ci làmb yàgg nañ dox ay kilifa ba yàlla dina suturaal kilifa gun dox rek yàlla def na yokk na. mu xam ne kii bëgg na mu yokk pour ñu ànd ak moom liggéey mu boole ñu ma ne ko bu doon ni da nga da nga soxla dix drapeaux ko def ndax lu baax lañ bëgg moom la ñuy wër te comme gis nañ ko ci moom nag dañ koy nangu mais ci kàttanu Yàlla ñu ngi leen di xaar dakaar di leen wax ne arène national rëy na rafet na. te bu ngeen ñëwee di ngeen xam ne jox nañ leen bis ñaan yàlla ngeen ñëw si jàmm ñibbi si jàmm si kàttanu yàlla waaw kontaan nañ trop daal. nee nañ drapeau boo mos a tëgg bii moo ciy dàq. waaw yàlla na ko yàlla def <laughs> ñu ngi leen di xaar daal waaw baax na. lan ngay wax. waaw ñi may seetaan ñëpp ñu leen di woo rek la Thérèse rendez bi la Thérèse la si kàttanu yàlla combat yu neex comme ni ko Sénégal yi waxee rek di nuyu nag waa diaspora bi yëpp wax na nañ. jàpp làmb ji seetaan ko combat yu neex lañ leen di tegal si kàttanu yàlla. incha allah jaajëf. merci beaucoup. merci. merci ma bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw léegi ñoo ngi santaat yàlla di julli si yonent bi rek. di woo population département de Mbour. di woo population commune de Sindia. maa ngi waa sumay mbok maa ngi woo sama grand frère. Sagor maa ngi woo ñoom Sidi ñoom Yaaku Diagne ku lim. juum di woo suñu grand frère Saliou Lo Issa Youm Guéréw oustaz si mooy seriñu groupe bi mais incha allah duñ ko bàyyi ginnaaw moom moom mooy seriñu groupe bi di woo di Ngëriñ ñoo ngi woo Cisco le grand artiste bi ñuy wax Samba di woo ñoom Awa Cissé ñoom Kia ku lim da ngay jum ñoo ngi woo Mohamed Dramé ñoo ngi woo ñoo ñoo ngi woo ñoom Nabou di woo ñëpp ku xamal ne rek ñoo ngi woo Moussa Bass Gandigal di si woowaale suñu champion biit it Ousmane Gandigal di profité di lancé waale message am nañ fi champion grand frère Assane dañu ko bàyyil xel si si si yeneen journée yi ngay am ñoo ngi sant di gërëm it Bammal di ko woo jaaraay Mariama ngi ni ñoom ñoo ti Aïda euh, soo waaw waaw Astou Ndoye madame jibi seen jila ñoo ngi woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di si profité di lancer appel it parce que esport moom vecteur de développement la foo ak ree la donc di woo non violence daal la ñu bëgg ñu neen ñun ñun ñi neneen nuñ si war a taxawee rek dinañ ko taxawee incha allah loolu la ñuy woo di si dénk mbër yi di ñaan que le meilleur gagne incha allah. ayca rendez-vous le 13 incha allah gars